bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman euh, yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen web tv Al Azhar Touba Al Azhar Touba ak son équipe te ci bopp bi di Cheikh Ahmadou Mbacké ak mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey ak Al Azhar Touba li ko dalee ci animateurs yi ak monteur yi caméraman ak technicien ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal atum 2014 mi nekk at moo xam ne atum jàmm la atum xéewal la mbokk yi jullit bi su at dee su amee douze mois donte sax ci bis bu nekk la ko war a def waaye rawatina at bu matee maanaam moo xam atum julit wala atum tubaab mu ci mën a doon rek na càmbaraat ay mbiram ci ñaari anam ci àdduna waaye itam ci àllaaxira ne càmbar mbirum àllaaxiraam xool ba xam ndax at mi li ko ci sunu boroom digaloon lépp def na ko wala def na lam ca man lam ko tere woon itam bàyyi na ko su fekkee ne gis na ne la ko sunu boroom digaloon lépp def na ko def na lam ca man lam ko tere woon it bàyyi na ko mu sant yàlla te gën a sax ca loola bu ko defee sunu boroom dina ko fay fay gu mat sëkk ndax moo ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma sante day ma dolli leen sant yàlla nag dara gënu caa raw bàyyi lim la tere te def lam la digle lim la digal a ah, war ngaa jàmbartam sa bopp bu baax a baax xool ba xam la sun boroom tere woon bàyyi nga ko su fekkee ne gis nga ne ah man kat li ma sama boroom tere woon bàyyiwuma ko la ma digaloon tam defuma ko bu ko defee kookan na daal di tuub ca saasa delluwaat ci yàlla ndax suñ boroom moo wax ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yaatiyakumul asaabu suma la tunsaroon moo ne gaaw leen tuub dellu ci seen boroom avant kill na soit trop tard yàlla suñ boroom wax léegi loolu mooy mbirum allaaxira mi ndax suñ boroom moo wax ci alquran ne wabtaxi fii ma aateeka allaahu daaral aaxira na nga toppatoo bu baax a baax allaaxira ji nga xam ne nii day ah moo taxoon ñu bind la ndax jaamu yàlla rek moo taxoon ñu bind la waaye tam nanga nga càmbar sa mbirum àdduna ci naka ci ñaari anam anam gu njëkk gi mooy nanga ko càmbar ndax ah mankat kat bi may def wala liggéey bi may def wala lu mën a doon ndax àq yàlla ji génn na ci fekkee kuy commerce la wala kuy def leneen mu xool ba xam ndax génne naa asaka ci at mi at mi dee na ah su fekkee ne génne na asaka génne ak yàlla yi bu ko defee moom it na sant yàlla xam ne la ko yàlla digaloon def na ko te suñ borom dina ko dolli ndax moo wax no la in shakartum la ko su ngeen ma santee ma dolli leen ah waaye nag su fekkee ne dem na ne xool na ah man kat la ma sama boroom waxoon defuma ko génnewuma asaka mataluma samay àq comme ni ko yàlla waxee ci alquran ne wa aatu xaqahu yow ma xisaadihi bu ngeen bàyyee ba noppi na ngeen génne asaka loolu itam day dugg ci liggéey booy liggéey bu nekk bu mateem at nañ ci génne asaka wa aati sal qurbaa xaqahu àq yi ci war a génne ci sa jegeñaale ak say waajur ak yooyu yépp nañ ko ci génne su fekkee xool nga ne ah loolu def naa ko xayrun boo ko defut nga dellu ci yàlla tuub dafa fas yéene ko def war nga koo càmbar ci ganeen wàllu àdduna itam mooy war ngaa évaluer sa liggéey xool ba xam sama liggéey bi kat ndax mi ngi dox wala duxut mi ngi dox walla duxut su fekkee gis nga ne sa liggéeykat at mi yëpp mi ngi amélioré wu di dox nga sant yàlla te gën a yokk effort walla nga sax foofe nga sax su fekkee nag ah dem nga ba année bi jeex nga daal di xool ne ah man kat sama liggéey bi am na rëq-rëq bu ko defee day laaj nga def li ñuy wax réforme nga yeesalaat laat indilaat yeneen méthode ngir mën a améliorer sa liggéey boobu mu tege ci yoon kon ñaari anam yooyu liis di euh, càmbare ab liggéey benn bi ci yàlla la jëm muy génne àq yàlla ji benn bi mu jëm ci càmbar business bi ba xam mi ngi dox wala doxul bu doxee nga sant te continuer bu doxul nga defaat ay amélioration yoo xam ne nii dana dana doxal sa liggéey ndax suñ boroom moo ne euh, euh, wala tansa nasibaka min ad-dunya àllaaxira kat moo tax ma bind la waaye sa cërub àdduna it bu ko fàtte kon wabtaxi fii ma aateeka daar daara laaxirata wala tansa wala tansa nasibaka min ad-dunya la alquran wax al asar Touba nag waxoon na leen ne leen dina leen defal ay liggéey yu am solo yoo xam ne nii dana feeñ ci qualité bi feeñ ci quantité bi feeñ ci contenu bi te loolu tam gis ngeen ko bi 2012 jeexee 2013 Alasar Touba waxoon na leen ne leen dana gën a yokkaat effort ci lépp loo xam ne nii dana dana leen di bégal ci qualité ci quantité ak ci contenu te loolu tam yaakaar naa gis ngeen ko 2013. kon 2014 bi ñu ngi leen ci ñaanal sunu borom defal leen jàmm ak xéewal waaye nag tam di leen promettre ne leen Al Azhar Touba dina yokkati ay effort ba li ngeen gisoon ci 2012 gis ko 2013 at mu dikk dana semmal moroomam loolu promesse la loolu nag li ko indi du ci nun waaye ci yéen ñi koy taataan la kon ñu ngi leen di ñaax ngeen gën a yokk seeni abonné ci Al Azhar Touba comme ni ma leen ko doon waxe fii ma teg sama loxo foofu ngay clic daal di bind sa password ak sa username daal di abonné automatiquement et gratuitement loolu dinañu dimbale te leen du leen coûter dara loolu lu am solo la ndax dana tax émission bu ñu def rek yéen ngeen jox jot jot ko ci saasi di leen wax ne euh, jéego bu njëkk bi nga xam ne nii moom la Al Azhar tàbbee ci at mu bees mi mooy defal na leen ba émission yi nga xam ne nii moom ngeen doon seetaan ci net bi su leen neexee ngeen seetaan ko ci seen télévision su ngeen amee euh, box yi may bëgg a lim dana doy rek nga télécharger euh, application YouTube pour man koo am ci qualité ci haute qualité high definition boo amee Roku di ko man boo amee Apple TV di nga ko man boo amee Xbox di ko man boo amee li ñuy wax euh, li ñuy wax Chromecast Euh, dinga ko man boo amee wii w waa aay aay da nga ko man mboolem euh, mboolem euh, box yooyu boo ci am download YouTube application di nga mën a am gratuitement yëpp c'est gratuite ci seen télévision te itam su fekkee abonné woon ngeen mbooleem vidéo yi nga xam ne ni nekk na ci Al Azhar ñëw ci seen boîte kon loolu tam mooy am lu am solo ñu leen ci ñaax kon désormais man ngeen a am à travers Roku Apple TV box ak euh, PlayStation ak Chromecast ak Wii yooyu appareil yëpp yenn box yooyu yëpp bu ngeen ko amee gratuitement di ngeen mën a seetaan mbooleem li leen Al Azhar di indil ci seen télévision kon ñi ngi dellu rek di leen ndokkeel ci at mu bees mi di leen ñaanal sunu boroom defal leen jàmm ak xéewal leen dig daje ba beneen yoon inchaa allahu ba at mii di dikkaat wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu